كما بالغاب والمقتدر معسوم من الأنعاء الخضر نفى لخير جيت ما ساء كاف كواني كل ما أساء فردت خير الخلق تفريا يدوم إني لأوخل ويمر وخديم يسر لي خدير ما تأثر على سوى لي ودا فسر الكرم الكريم والمكرم وخاذلي بشكري المكرم وأوتي مساني كالكدي wajaltaarukia ma sukuni salaamaaleykum mbokki jullit yi safa académie Minane TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey ñu dikk ak yéen fii si Touba defal leen seen reportage di jour si ndigal li nga xamante ni jëm na jógee si xalif général kuli murid mun Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal mu yàgg fi lootu ànd ak wér Euh, li nga xamante ni seetlu nañ ko jamono ji nga xamante ni mi ngi am si Touba di ay manifestation sëñ Mountakha Mbacké jox Baye Fall yi ndigal pour ñu saytu dëkk bi gën a toppatoowaat dëkk bi ak lépp loo xamante ni sëñ bi bëgg ko te dëppoowut ak dëkk bi euh, ñu dox ci wax ci euh, ba nga xamante ni kenn du ci amati lenn loo xamante ni si yaa ngi jóg di ko yàq si Touba bu ko defee damay ànd ak sama caméraman ñu taataan kàddu askan yi ba xam ñoom lan moo ci seen xalaat lépp lu seen bi mën a aay rek war nañ cee mën a taxaw ndax nekkul fi kenn ku dul Seexul Xadim ñun yaakaar ku dul sëñ Bamba yaakaar nag ñun yaakaar waa yaakaar borom Daaru Musti ñu ngi ñaan yàlla ci bàgg Seexul Xadim si mu taqa lépp nuy aay lu ne képp ku ko man ku ne na ko mën a bàyyi ci yàlla tax ndax mooy dëgg pii moom dëkk du dëkk bu kenn dëkk bu baay bu kenn dëkk bu Seexul Xadim la da koo jaayante am ko ñu bàyyi suñu genti maam ñëw tuxu si dëkk bi yaakaar si mun taqa ci rek yàlla rek tax kon lépp lu mu bëgg lu mu bëgg lu war ci man ñu mën euh, sëriñ bu li mu digle murit bu nee murit jeexal nay wax mooy jëfe ndigal bàyyi tere ndax li fi amoon fan yii si gannaaw moom dama koy ñaawlu. waaw ah, nun dëkk bii képp ko fi ne ak koo mën a doon ak foo mën a jóge ba ñëw fi danga ngaa war a dëppanteeg sart yi borom dëkk bi soxla dëkk bi li ko fondement fu suñ Musa suñ Tuubaa Musa fanaan ci dëkk bi. Touba gi ko ci gënal kon li fi borom Touba bëgg sëñ Muntaxa bëgg ko fi ku bëgg dëpp ak ndigal da nga ciy sax. maanaam ci affaire politique beeg li ci sëriñ bi digleeg lim ci euh, tere xanaa ñu góorlu rek ba jàppale ko ci ci ni mu ko bëggee. xam naa ne diine bi ak yoonu àddina wi moom ñooy ànd di dem rek. ñun de ay taalibe lañu toujours noo ngi moytu dañ ñuy tere. dañuy ñaan daal yàlla buñ ñu fekk ci liñ ñuy tere waaw noo ngi moytu tere yu baax a baax a baax tey ñaanal suñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér lépp loo xëy xool nañ ko sëñ bi di bañ ko ci dëkkam bii noo ko bañ la bu baax ca nañ yéene képp ku gis dox ba gis ngay def lu mel noonu dinañ fexe yéen ñi nga xam yéene ndaw yi ngeen jot ci ba mën a lijjanti loola mu réglé mu tege ci aw yoon. ñun ñi nga xam ne dañoo sukk jébbalu di ay taalibe na sëriñ Touba fag ñu jële fag ñu jëmee ko gën kon murit dañ koy dawal ndax chauffeur a yor baar ku ñu wommat du xam fu muy jaar te murit ndigal saa bu ca tënkoo jariñu saa bu weddee ndigal noppee jariñu Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassir nag yërmandeem ak njariñam daj na àdduna bépp ñëpp leer na leen naññ nii nga xam ne nii sëñ bi noonu la gisee ñu ñu ni politiqué eh, di ko def ci Sénégal loolu la wut ak dëkk bii di Touba waaw ndax euh, nit ku ne war naa xool euh, li nga xam ne ni noonu Serigne Touba sànq sànce woon dëkk bi. maanaam sëñ bi moom lim tere ci dëkk bi suñu war wareef mooy baax rek te waruñu woon a nekk ci loo xam ne sëñ bi dañu ko tere surtout dañu war nekk ci loo ni kenn duñu kenn duñu tere ci loolu la ñu war a nekk ndax dëkk bi dafa wóor ak dëkk yoo xamante ni du wuute nag dëkk yu bari ndax dëkk bi sëñ Touba ko moom mooy boroom comme li war mooy buñ fi nekkee ñu nekk ci lim bëgg. buñ mënta nekk ci li bëgg ñu génn dëkk bi dem ne dem nekk ci leneen waaye dëkk buñ fi nekk dañoo war a respecter la sëñ Touba bëgg ñu nekk ci. te képp kuy ab taalibe yaakaar sëriñ Touba yaakaar naa ne waroo nekk ci loo xamante ni dañ la koy tere. kon ñun waruñoo jënd waruñoo jënd dara sëriñ Touba tout le temps dañoo war a nekk ci li sëriñ bi bëgg te bañ a nekk ci lim ñuy tere. fu waay jaar nag sa coobare da laa faa jaarale waaye ndigal li moom bañ ko sampee fii ci Touba. ci ndigalal ki fi nekkal Serigne Touba ci waxtu yu nekk ñu koy wax di ko feddali ku ñëw di ko feddali ah lu fi nekk direct la lu leer naññ lax ñëpp a ko xam. lépp luy politique nga ba ko kenn ku ne am nga ku ne ci sa xol bu wootee jotee demal wooteel ko te lépp luy politique ci àdduna fii ci dëkk bi ñu ne ko fi teg ko fi suuf. maanaam politique niñ ko ni mu ni mu ñëwee noonu lañ koy doxalee kon yii yëpp du am waaye am maanaa euh, polité euh, politique. Eh, bi Sénégal di def boog ñun ñun ñun doomu Sénégal ñu xam nga xam ne daanaka ci eh, ci ay cinquante ans la ñuy toll fii ne daanaka. Eh, ba pare ba daanaka waxuma la ñun sax waaye am na xale yu tuuti tey boo leen waxee problème politique dina am nuñ koy gisee waaw daanaka xale yi ñëpp a ay politique ak moom amul njëriñ amul ñu njëriñ ñun ñoom ñi ci nekk ñoom la amal njariñ ndax seen intérêt bopp dong lañ ci xool xooluñu ci leen coow li muy bari bari kenn ku nekk sa intérêt la ne sa intérêt ngay xool. ndaw ñi itam xanaa ñu góorgóorlu fexe topp ci seen kilifa yi fexe itam jàng wi nga xamante ne moom yàlla def na ko fi te moo ñuy yee ñun ñëpp ñu góor góorgóorlu ci bu baax nag nangoo liggéey te nangoo topp ndigal rek. waaw ndax gone moom ak euh, koo gis daanaka ci jamono bi rek am na kilifa ba ci mag yi ngeen doyloo nii sax li ngeen di mag mag dañoo am ay kilifa. xale yi nga xamante yi nii dañoo rii ruuti politique bi ñu moytu ko bu baax te séeni waajur di leen ndànk bu ñuy génn kenn ku ne sa doom di génn nanga ko woo xamal ko li nga xay moom la sëñ bi tere ci dëkk bi xamal ko lim fi digle boo ko defee bu déggee ndigal dina am jaam dina dem ci jaam ñëw ci jaam. waaw man de loolu laa leen di digal chaque jour. jeunesse bi mooy ñu am fulla xam seen bopp xam li leen war bañ a topp ñi nga xamante ni riirum àdduna leen ñor ñun àdduna ñor ñun dañoo war a dépassé nit ñi dañu dañu jariñoo dañoo war a am xel te yeewu bañ a bañ bañ bañ a topp ñi nga xam dañuy jariñoo politiciens yi soxlawuñu seen intérêt dong lañ la ñuy la lijjanti li ñuy wax ak li ñuy wax lu dara ñor leen di du ñu poussé ci ñuy xeex ak di génne di sànni xeer ak lu nañu di ko def seen intérêt rek la ñuy lijjanti képp ku ci falu pare nga ci ñun kon nañ am fulla ak fayda te gëm suñ boob dénk ndaw ñi mooy leen nan xalaat ni àdduna mu ñu ñoo xam ñun xale yu ndaw yi ñu liggéey suñu àdduna pour soutenir suñu doom ëllëg du mooy àdduna tubaab nii li ñoo fay la force ñu booloo nekk benn tam dolli ci suñu booloo nekk benn lu bëgg ba doon ko mën a am waaye bu booloo wul nekk benn duñ bëgg duñ ko mën a am. nan booloo nekk benn bëgg sëñ Muntaxa Mbàkke rek tax ak Seexul Xadiim fas yéene koo liggéeyal ci dëkk bi man laay man laay wax ndaw ñi. ndaw yi góorgóorlu nangoo liggéey sax ci njub moytu lu ñuy tere waaw sax ci njub boo jubee loo bëgg def da ko def boo jubee loo bëgg a am da ko am ah, liy tere doomu aadama mooy njub njub jub kocc mooy alal doomu aadama yàlla nañu ci yàlla saxal nun ñëpp nag. saxal na ci saxal ci bépp taal taalibe bark sëñ Fallou. loolu dénk ndaw gi dañuy jël xam sëñ Touba dénk na ndaw dénk na ndaw lu tuuti dénk na jeunesse maam ki ñuy wax sabab waaw maanaam euh, dafa wax ne yéen ndaw ñi bu dee ndaw tu tànk yi euh, laa tas tastaxilu anil huda maanaam bu leen soxla soxlawoo lu dul njub waaw wabil ulumi staxilu ngeen wut xam nag ndax xam mooy tax maanaam euh, li ngay jëf nga xam mooy lan. loolu sëñ baax xeetal na ci ndaw lu ne mu xam. waaw képp koo xamante ni yor nga doom muy génn moo xam muy góor moo xam muy jigéen ni sëñ bii tere dee ko digal ndax gone moom gone la rek gone xamu dara waaye yow mi nga xam yaay mag xam la la cay fekk ëllëg yow yaa war a yow yaa war a régler sa doom xamal ko ni ko lii dañ koy moytu lii moo baax di ko xamal xàmmeel ko li baax ak li bon. lu ci ndigal lii Baay Faal yi joxe nag ñoom seen bakkan lañ ci teg. bakkan yi ñu ciy teg nag mooy bakkani taalibe yi mooy tu ndigal rek. Baay Faal yi kat liñ jóg moom ñi ngi ci te duñ ci dellu ginnaaw ilaa yombal xiyaamati duñ ci dellu ginnaaw duñ ci dellu ginnaaw duñ ci rikkale nun ñi di taalibe nag te bëgg nekk ci dëkkub Serigne Touba bi kenn ku ne am nga sa pencam maam boo bëggut a nekk ci dëkk bi demal ci sa pencam maam loola neex nga def ko fa. waa kër Cheikh Ibra fa Cheikh Ibra nekkoon ak fam taxawoon ak lam doon jëfee rek ca lañ ne. waaw fas yéenee dund sëriñ bi tàmbalee ci moom yem ci moom yàlla buñ jaay suñ leer jënd lëndëm laa tëstëri duniyaa bi xuraaya fata man ba anuran bi du jaa fasa yéen demu bakkan moom ku ko topp dana la dugal foo xam ne danga bëgg génn doo ca génn ku fi am fitnay àdduna àdduna dong la ko yóbbale ku fi am njariñu sëriñ bi topp sëriñ bi dong la ko indil. ñu bàyyi xel ni dëkk bi ay ndaw ngi ci ñoo xam ne ni ay jàmbaar lañ bëgg nañ lu baax bëgg nañ itam ku leen jàppale ci fànn bu ne nag ci wàllu diine ji ci wàllu uh, nguur gi ku ci yàlla dénk rek loo xam ne ni uh, lu mën a taxawal jeunesse la pour ñu ñu ñu tekki ñu baax ñoo ngi leen di laas appel. jërë ngeen mbokk yi lii lañ leen indiloon seen reportage du jour si tere yi nga xamante ni sëñ Mountakha Mbacké xalifa général ku lu murit di ko ñaan mu yàgg fi loo te ànd ak wér tere na ko lii nga xamante ni mooy lépp lu jëm ci politique ak manifestation si biir dëkk bu sell bii di Touba. li nga xamante ni taaliba yi xalaat nañ ko ci mooy lépp loo xamante ni sëñ bi bugg ko ak lépp loo xamante ni mi ngi koy tere si Touba ñu ànd si ak moom te ni nu déggee kàddu yi askan bi ñëpp ci ànd ak sëñ Mountakha Mbacké te di ko ñaanal mu yàgg fi ànd ak wér ñu ngi leen di jaajëfal bu baax lii lañ leen indiloon seen reportage du jour jaa ngeen jëf كمال الغالي والمقتدر معصوم من الأنعاء الخضر مفعل خير جيت ما ساء كاف كوان كل ما أساء فردت خير الخلق تفريا يدوم إني لأوخل ويمر وخديم يسر لي خليل ما تأسر على سوى اليهدى فسر كرما الكريم والمكرم وخاذلي بشكري المكرم وأوتي مساني كالكدي وإلتارك مع سكوني